balaa ñoo tëj waxtaan bi ci li xew fan yi ci ay nerf yi nga koy dégg ndax gis nañ fi gendarmerie gis fi police yi gis fi force de l'ordre yi nga xamante ñoom lañ yaakaar ni ñoo war a yor suñu kaaraange waaye dañuy gis ni léegi njiitum réew mi wala yenn ci kilifa homme politique yi dañuy faral di jël ñoo xamante ni dañ leen di escorter ba léegi sax dañuy dal ci kaw askan bi oustaz te mu nekk actualité woo xam ne ñu bëri jaaxle lu ci sa jàngat. man de li ci sama xalaat balaa mooy mënoo nekk sa bopp ba pare ñëw toog di ñu commandé nag boobu caméraman bi ko <laughs> temps bi laa koy wax quoi dégg waaye bu fekkee ni li xew la ñàkk gëm yàlla la ki li li ngay xëcc ku la ne ko jëriñu njëriñ loo fekkee xale yi gunge woon mag ku leen waxoon ne foofu la ñuy faatu ñoom ñi xëccoo deux mille vingt quatre defe na ak mairie yi ku la wax ne boo yoree maire bi danga ko jëriñu ku la wax ne doo fi dee ci diggante bi mais xamoo ci dara kon yàlla nee na fa ahsinu fa inna laa yuhibbul muhsinin rafetal leen ndax damaa sopp koy rafetal nañ rafetal campagne yi bañ ciy dugal lu ci bokkul loolu rek la mën nga laaj nag lu lu lu sew loo xam ne célibataire yi ñoo ma yóbbante woon ci ndax célibataire yi bu ñu jullee marié ñoo koy moom ustaas yi dem bay waxtaan ci loolu loolu est-ce que du wàññi un peu jaamu yàlla bi doon ci waaye ñi ko wax waxuñu benn dëgg ah. man amila saalihan nañ ma ko firi ah wa man asa faaliha yàlla ne lu waaye def ci lu baax yaa ko moom bu dee lu bon it yaa ko moom ñu naan julli célibataire rek julli marié marié mooy lan soo amul loo takkee jabar bul takk bul lor doomi jàmb laa darara wala diraara julli yàllaa ko moom bokkul ci sëy tabaski yàllaa ko moom bokkul ci sëy aj màkka yàllaa ko moom bokkul ci sëy ku la ko wax waxul dëgg laa wax jullig marié amul jullig célibataire am amul jullig yàllaa am jullig yàlla ku la ko wax waxul dëgg julli leen ngeen bañ commencé songu diini yàgg na de ca tëjum jumaa ñu teg ci léegi góor jigéen yàlla ne xaaral ma ñëw dinaa leen indi loo xam ne moo gën a garaaw góor jigéen dama leen di rey ngeen di lab may rey ngeen di accidenté di dee ndax dootu leen tudd lii dafa am luy julli célibataire man sama julli defe nga ne awma jabar ñu koy jox ko bay yow ban célibataire yow nooy def man am mi la saaliyan fani nafsi ak man kaana li laay kaana laaw law yàlla ne aqimoo salaata julli leen daa tudd Marie. tudd Marie daa tudd non Marie. aqimu salaata julli leen. ustaas génn bëgg xaw ma baase la baase du bës baase. baase day daw biir. baase. la day daw seen biiri wooku leen dëgg. firi leen aqimu salaata. julli kon loolu binduñu ko fenn. am soxla <laughs> li mu wax mooy naan julli tudd ñu célibataire tudd ñu kenn ak salaata kon ñi ñuy gëmloo naan ñu ay se marié ëpp yoo waaye dañuy fen nga naan malan maa la wax loolu waxuñu dëgg nañ firi ak moo salaata ak ban amila saali an fali nafsi ah julli fa waylun lil musallin alladina an salatihim saawun yàlla nee na ñuy sàgg ne julli ñépp safara lañ jëm lii alxuraan wax ko nga naan way di bëgg a baase bul boo lekkoon iran méttiwul waxu yàlla la waa ji dama ne sëriñ bi hmm. ku ma toogal ci àdduna nga weddi yàlla hmm. wax lu mu waxul hmm. weddi yonent bi weddi diine dama lay dóor maa la wax loolu te gis nga sama loxo bi bu ma li ciy dóor ngay faatu benn sëkk nekk loxo bi bu ma lay dóor ngay faatu man du xale. Iran ñu ngi lay jaajëfal balaa noo yëkkati jotaay waxtaan wi soxna yi bu fekkee amul laaj boo xamante ni nii. Mhm. ko laaj oustaz. balaa ñu peut-être ubbi ubbi jumaa yeeg ci corona bi mm-hmm. euh, ñu ngi naan euh, Tivaouane ba tey ubbeeguñu yow oustaz mi ngi continuer ay activité am loolu loolu lan la. waaye sant yàlla rek adduna ma yëpp ngi julli jumaa <laughs> ñëpp a ngi wasifa ñu la nga waxoon dellu nañ ci. ah mu nga ñëpp a ngi xadara. moo tax la toogal ci ndaale li fële la gaa yi fekk. moo ne ilimaan yi yëpp àndoon ministre de l' intérieur fi ne maa ko déglu ñu ne d' accord nañ ci tëj jumaayal jàkka yi wala lu tax léegi ñu tijji ko di julli. sax maa ngi naan Iran waaw lu xew. waaye ni eh, waaw man mii bokkoon ah, moo waral mu jël position. bu ah, ah léegi nangu nga de. <laughs> gis nga sëriñ bi dama toog ci yàlla rek lu coow li bëri bëri toogal ci yàlla fële la ñëpp fekk Dakar a ngi riir ak wasifa Dakar ngi riir ak julliñ juma ñu ngi riir ak xadaratu juma ñu ngi riir ak xasaayid yi conférence yaa ngi jolli maa ubbi gàmmu gi Thiès maa ko fa ubbee sama tànk bi ngay gis sëñ bi caméraman gis nga tànk bi dafa néew ba toll nii tànk bi su ma ko dëggee ci sama xol bi laa ko yëg ma ne ko danañ gàmm de parce que benn sànni tàccu la mooy ubbi programme mu diine après corona maa ko def ca Thiès teet ko ci internet bi amin amin yàlla boo àndee moom doo ragal ñépp ñëw nañu li ci des nag mooy affaire këru jàmbur man duma ci wax man këru jàmbur sama yoon nekku ci seen mbiri bopp la man Iran rek ka ma ñor te li ma li ma ñor sama bopp yëpp yàlla la yenent bi diine ji man ñett daal ci laa ne yàlla bi diine ji jeex na ko yor sa xaalis téel benn waaye daf ma woo ma ñëw ma ban foofu ndaw si ooñu ma ne ko soxna si ah dama am programme bi mu ne ma day teel kilifa yu bëreen foon ci réew mi su ma neexoon tudd seen tur fekkee nañ jataay ba ma yegg si toog ajjuma la woon ñu ne ma kilifa gi nee na nga may ko ba mu recevoir ñi jël la ma ne ko waaye yow man may julli ji jumaa damay yéeféer ne ko bu ma wooti loolu laa ko ci tegal bu ma wooti ñi taxawoon ci couloir couloir bi jëpp a tiit ma ne leen fëlëx romb leen dem man dinaa toog bañ a julli jumaa ndax mbindeef ndax ak ndombos tànk su bon suñ la jox loo xam ne balaa ëllëg nga génn ci dootoo doon dara maab baa ngi toog maab mooy ko toogoon sama wet fee sax yàlla la koy dégg fi mu ne alhamdulilah a ngi dox conférence yi gàmmo yi wasifa yi xadara yi xasaid yi gàmmu murid yi tijaan dara taxawut man gis ni mbiru yàlla moom tànk boole ci ñun ñi ndaw sax leneen lu nu nekk na ci mbiru yàlla ah. jafe-jafe rek ah. ci yàlla rek mu yomba mu yomba mu yomba walaay ah. mooy dëgg yàlla ci la lépp ne lu dul yàlla hmm. dara newu soxna Aida waaw xanaa rek ñu ngi jaajëfal suñu mbokk internet yi ñu doon teewlu ci jotaay bu am solo bi nga xamante ni ñu ko ubbee woon ci birum tabaski waaye gis ngeen jàngal bi ci aju ak tomb yi ñu laal ci tolluwaay jamono di ko jaajëfal oustaz Iran di ko ñaanal yàlla tamit moom it mu ñaanal kër gi ñaanal internet yi ñuy teewlu oustaz xanaa rek balaa muy yëkkati jotaay waxtaan bi eh, yóbbal goo xamante ni nii sunu internet yi ñuy teewlu daal di ko jox ndax jamono lëndëm na jaxasoo nag te nit ñi gën a jaxajaloo eh, li ma leen di dénk rek mooy nañu dal rek dinañu hmm. teey dinañu hmm. demee xel surtout président surtout Macky dafa message buy dem rek njiitu surtout moom parce que buur boo nekkee chauffeur nekk ci oto pneu ba crevé te oto bay daw deux cent boo toppee coowu client yi oto bi day daal gérer ba mu gaaree nga changer sa pneu fi la Sénégal toll xam naa li ma koy wax li may consulter ay junni li ci nit soo demee fa ma dëkk du jeex su ma génnee jëm sama oto damay fekk ñu bëri taxaw sama nopp li ciy dugg du dugg ci nopp jamais fu ne laay réglé ci mbir kon li ma koy ñaan mu ngi ci oto boo xam ni mu ngi daw deux cent mais auto bi pneu bi dafa crevé bu géré wul baar bi te moytu coowul client yi moo oto bee ànd daanu dégg nga olof yi président jàppal li ma la wax man soxlawuma nga recevoir ma soxlawuma nga fal ma soxlawuma nga may ma xaalis soxlawuma ci yow dara man yàlla rek waaye li ma la bàyyi ko xel de te fim mu ne yaay dirigeant wu mi te ëllëg yow la ko yàllay laaj te réew mi jax na dalal teel demee Sakho bi des ñu nekk ci Sénégal maa ngi leen di sant bu leen saaga kenn bu leen xas kenn bu leen wax lu ñaaw dafa am baat du benn baat ma wax la ko oustaz mooy al xill xam nga xill war na zaana ma fi suduurihim min xillin yàlla ne am na tomb bu ne ci biir dënnu nit su tomb boo fuddutoo comme ni jaan di fuddutoo nee na mën ngaa rey sa jabar man nga koo fase man ngaa saaga nit mën nga koo wax lu bon waaye su dalaatee nga réccu yàlla nee balaa kenn dugg aljana danaa ko rocc ba pare sinon su ma ko roccuwul aljana rayante bëri fa moo ñu dal ci réew xel boobu indi coow xel boobu ne piil bu ne ci dënn ku ne pile bu bu yëngutoo rek adduna tu man nga jamti paaka man nga fase sa jabar man nga ko rendi man ngaa def lu ne waaye bu pile bi ne tekk nag nga dalaat kon maa ngi ñaan waa Sénégal ngeen góorgóorlu bu baax bu ngeen mën a mere it te mënu leen a ñàkk wax ci moom wax leen moom ci yar ak ci teggin ak ci sago parce que adduna dafa gudd tànk jamono mën naa dox yow konoon na da leen da nga ko gëm ah soxna si konoon dana ko gëm euh, man ñu ngi dem ak dikk bu fekkoon bu konoon da leen daje dana ko gëm <laughs> mais àdduna nii la mel tey bu ngeen waxoon ci man lu ñaaw baa mu wax ci yéen lu ñaaw far ñu daje tey fu ngeen jëm ak fu ma jëm c'est ça dañu rafetal rek Sénégal sunu Sénégal. rafetal leen merci. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon tamit internet yëpp di leen jaajëfal ci ànd geek euh, topp bi di leen baalu ak te ngeen baal nu ak lépp ngir ànd ak jamono ci waxtaan yoo xamante ni daf leen di gunge ci li leen di ak liy leeral euh, di leen jaajëfal kon ba beneen yoon ci yeneen jotee waxtaan ak beneen gan incha allahu rabbi